sénégalais yi dañu toog un bon jour mu ngi sunu ginnaaw muy deux mille vingt un ñu gis benn waay bu tudd Ousmane Sonko def point de presse boobu man xaw ma lu xew yow mii di seetaan xamoo lu xew Mamadou Ndiaye xamul lu xew Kumba xamul lu xew benn Ousmane Sonko def point de presse ne gendarmerie daf ko jox convocation pour na ñëw wuy ji brigade de recherche sénégalais yi ne lu xew kenn xamagul lu xew Ousmane Sonko ne moom mii sëgëm député la du dem wuy ji brigade de recherche il faut ñu dindi immunité parlementaire am foofu rek xel ñaaw na parce que lu toll ni Ousmane Sonko jiite parti Pastef nga toog un bon jour gendarmerie woola ne la allez monsieur Sonko suba 11h dañ la soxla nga xëy def point de presse y a quelque chose. parce que yow defoo waxoo buñ la woowee gendarmerie waroon nga mën a yàqamti taal sa oto dem ba ci commandant gendarmerie bu la woo nga ne ko man Ousmane Sonko maa ngi nii lu xew ba ñu war la mën a wax ne que benn xale bu jigéen bii moo lay tuumaal ne da nga kaa sàkku luy ñëw doog a ñëw waaye yow ñu woo la téléphone ne la sëñ bi Sonko demain à 11h soxla nañ la à la brigade de recherche bu Colobane nga xëy takk rajo yi ne hee. teew ma dañ maa bëgg fexeel lan lañ lay fexeel nit bu demul gisul waxul mbindeef mënu ko fexeel encore une fois loolu day woy ne lu waa ji waxoon sama xel ñaaw na sama xel tey na ñu toog ci la lendemain si lañu ñu commencé dégg nekk benn xale bu jigéen bu tudd Adji Raby Sarr mooy tuumaal Ousmane Sonko ne daf ko sàkku ne daf ko bëgg faat ainsi de suite ainsi de suite Ousmane Sonko comme nee na moom du wuy ji faaw ñu dindi malaanu kiirlaayam jamono jooju député yi ne jarul coow comme moom député la te nul n'est au-dessus de la loi dañuy def vote ñu dindi malaanu kiirlaayam bu ko defee mu daal di mën a wuy ji incha allahu rabbihi yoon biñ ko defee ñu dindi malaanu kiirlaayam si ñett euh, ñett fan bu ma juumul moom Ousmane Sonko waroon defaat point de presse mu ne sénégalais yi maa ne woon kat bu ñu dindee sama malaanu kiirlaay ma dem wuy ji yoon comme dindi nañ sama malaanu kiirlaay xaw ma lu ñu may toppee maa ngi dem wuy ji yoon mais deful noonu dafa ñëw def point de presse taqaat rajo yi mu ne hee sénégalais yi nar naa wuy ji yoon convoqué nañ ma mais bu ma génnee pour wuy ji génn leen ngeen xeex mais lan la ñuy xeex kon moom am na lu mu xam lu sénégalais yi xamut parce que yow xamagoo luñ lay doyee ca brigade de recherche ba nga mën a def point de presse nga ne askan wi génn leen ngeen résister lu tax appel à la résistance boobu xamagoo lan lañ lay toppe nga takk rajo yi ne bu ma naree wuy ji je vous appelle à la résistance vidéo yi ñu ngi fi lu xew ba ngay woote résistance parce que yaakaar nga ni boo demee xëy na lu ñu lay tuumaal dafa fekk nga def ko kon doo mën a génn moo tax ngay mën a woote appel à la résistance loolu waral ba mu nee day wuy ji appel à la résistance am boobu yenn nit yi nga xamante ni xëy na amuñu ñaan waajur topp ko si loolu ba gis ngeen fu mu mujjee lu toll ni fukki nit ak ñeent ñàq si seen bakkan ci rekkaay kaay wuy ji police ñu xool est-ce que yow lii kii di la tuumaal yow la wala du yow ma yaakaar ni boo deful waxoo mbindeef mënu mënula tuumaal ci kaw suuf da nga waroon mën a dem setal sa der sangu ba mu set wicc wax sénégalais yi woo nañ la si yoon wuy ji nga yoon lii lañ la doon toppee nee nga liñ lay toppee yépp ay kasaw kasaw la bu dee am nañ si preuve nañu indi preuve bu ko defee duñu woon mën a egg fii ba ñuy taal si ay magasin yu kenn xamut coow li na kur yoon di dem yoon dem ñu gis Ousmane Sonko dem ci page Facebook am mu ne xamul fii nga xamante ni mooy Sweet Beauté bu leen fàttaliku fàttaliku leen loolu yàggul Ousmane Sonko moo dem ci page Facebook am mu ne moom xamul fan mooy Sweet Beauté musu fa teg tànkam ñu gis avocat Ousmane Sonko dem ci benn télé de la place daadi génne kaamil daa waat ne client am musul teg tànkam ca Sweet Beauté boobu ñu ñëpp xamaguñu ñu toog tuuti gis Ousmane Sonko en person génna ne dem na fa ñeenti yoon ah mbir yee ngi nduru nag lu xaw a doy waar bind sa page Facebook musuma fa dem jékki-jékki supprimer sa avocat bi nga woolu dem ca benn télé de la place daa di génnee kaamil waat ne mosoo fa dem yow ndayu mbill bi nga ëlbatiku génn ne aha kay dem nga fa du benn yoon du ñaar yoon du ñetti yoon mais dem nga fa ñeent yoon ah bañaluñ la nga dem fa ñeenti yoon mais loo fa doon wuti ah bi mu waxtaanee naayam mu ne xaaral mu jéem a lëre sénégalais lima li fa doon wuti mooy dafa am lu ma yëg sama yaram maanaam man dama amee feebar te damaa demoon foofu pour faju ji ah sénégalais yi di jàpp nag loxo ca gémmiñ ne est-ce que foofu hôpital la est-ce que foofu centre de santé la lu tol ni Ousmane Sonko feebar amee feebaru nduggi ndig amul fu mu war a mën a fajujee lu dul ci ay suite Beauté ñan ñoo nekk Sweet Beauté ñoom day Khady Ndiaye ñoom Adji Raby Sarr ay nit yoo xamante ni seen njàng soriwut ay nit yoo xamante ni amuñu diplôme kon lan la fa nit boo xamante ni nee nga da ngay faju ji wuti ji woon te jamono ji bi ngay dem foofu ne da feebar àndoog sa chauffeur àndoog sa garde corps àndoog sa soxna àndoog sa yaay àndoog sa tante àndoog sa porte parole du parti àndoog kenn yow kottu yaa yollosi yollosi dem ba suite boote jamonoy couvre feu jamonoy confinement ñu ne woon ñépp nañ toog seen biir kër yi déeta waaye mu dem fa guddi doy na waar yéeme na ñu retourné Ousmane Sonko boobu commencé andi ay jiixi jaaxa wut lu toll ni fukki avocat ak lu teg ba pare takk si rajo yi ne dossier bi kenn mënu ko si tëj muy juróomi at ñaari at parce que dossier bi dafa vide ma yaakaar ni dossier bu vide nit waru si wut ñaari avocat mën nga doon sa avocat wu bopp mbir mi yéeme na mbir mi doy na waar dañuy dellu en arrière ñu déglu ba mbir mi commencé ak fu mu toll tey ba procès bi nar a nekk le 16 incha allah rabbihi ñuy ñaan gudd fan ak wér ba ñu fekkee bës boobu ñu xool lu yoon di dogal donc dañuy retourner tuuti en arrière ñu ne coow li coow li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 digal ci cadre. donc yaakaar naa ni waxu Ousmane Sonko yooyu dégg ngeen ko nee na ba mu duggee si Sweet Beauté da leen ne moom massage thérapeutique la bëgg ngeen xool est-ce que Adji bi Sarr bi nga xam ne amul certificat muy CFP amul entrée en sixième amul BFM est-ce que kii am na diplôme de thérapeutique doy na waar déeta waay Ousmane Sonko mu ne benn oustazam la woo ne ko fii amul masseur bu góor masseur bu jigéen ñoo fi nekk kan mooy oustaz Ousmane Sonko boobu bëgg nañ ko xam ndax am na lu diine wax nga yor ñaari soxna oustaz bi waroon na ko mën a wax ne que xanaa say sonko euh, say soxna dañoo feebar bu la ne déedéet wala dañoo tukki à la waaye yor nga sa ñaari jeeg yu gën duuf lool xale bi yu gën a rafet lool xale bi lu gën a jàng lool xale bi sa ñaari jéeg yooyu mënuñu la ko defaral xale bi ñëw war la ko mën a defaral bëgg nañu nga présenté sénégalais yi boobu. deetawaay nee na waa Sweet boote yor nañu licence ak patati patata yoo xamante ni ngoo yoon moo leen jox pour war nañu mën a def ay massage thérapeutique te ba léegi Sweet Beauté amul licence boobu bu ngeen bëggee dégg-dégg daal Sweet Beauté genre auberge la. de de de de de trafic influence yooyu daal affaire de réseau nëbbatu yooyu <laughs> Ousmane Sonko ba mbir mi xewee demoon na si page Facebook am mu bind comme nu mu koy defee tout le temps que xamul fu Sweet Beauté féete mosul dem Sweet boote encore une fois réeroo am na foofu parce que moom ëlbatikuwaat na nee na dem na ñeenti yoon Sweet Beauté doy na waar léegi coow li yëpp tamit am na lu ko andi de mhm. coow li coow li coow li coow li am na lu ko andi mooy Ndeye Khady Ndiaye bii moom Sweet Beauté jamono jooju am na lu mu waxoon dañuy déglu lan la waxoon ñu daal di ñëw. Euh, da ngay exercer en tant que masseuse wala da nga am ay masseuse ci. Mm, dama am ah, dañuy jot euh, dañuy jot benn plainte. Euh, ci plainte bi ñu accusé ay faits yu xaw a graaw euh, kii di Ousmane Sonko di politicien te ki bind plainte bi bi mu ci adresse yi mu joxe euh, yi mu détails yi joxe massage bi salon de massage bi la joxe donc mu wax ne mu ngi tudd Adji Sarr que salon bi mi ngi nekk ginnaaw cimetière Saint-Lazare donc bi ñu waree ci lañ gis mu jox tur bi également suite suite beauty massage Mhm. donc ñu bëggoon ñëw ñu ñëwoon fii déjà pour am lu leer parce que wut euh, dëgg bi xam fu mu féeteeg yooyu ndax xam déjà euh, comme niñ la laajee ndax euh, yow yaa bind plainte wala bu dul yow est-ce da nga da jot nga dégg wax jooju wala ndax jot wax jooju jot na ci yow ndax am nga employé bu tudd Adji Sarr ak bu fekkee am na également accusation yi nga xam ne moom la def ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko yóbbu ko ba porté ko plainte section de recherche ndax jot na ci waxtaan ak yow. d'accord. nga tudd dama. man maa ngi tudd euh, Ami Diop. Ami Diop. Ndeye Khady Ndiaye Salon. kon dëkk fii nga dëkk. fii laa dëkk waaw. Dakar nga juddoo nga yoroon. mais man portuma plainte kenn. Hmm. Adji Sarr sama employé la woon fii la doon liggéey. moom depuis quand nga commencé liggéey fii. man liggéey na fii xaw fi yàgg foofu nag ñëpp ñu koy liggéey ma arrêté ko. après bu ma ko arrêté soo ñëwaat mu commencé waat sama liggéey. ban période hmm? ngi ñëw fii ay euh, après avant décembre la fi ñëw la fi ñëw. donc bi mu fi njëkkee ñëw ko période. bi fi njëkkee ñëw période boobu xaw na yàgg de parce que toogaan na six mois doo commencé waat fii. Hmm. actuellement dafa mi ngi liggéey ak yow toujours wala dafa bàyyi. non non parce que moom jour bu mu bu mu waree def euh, heure bi mu def nii. parce que fii Sonko da doon ñëw ci kër gi. Sonko da doon ñëw ci kër gi Sonko da ci kër gi di maase hmm. mais Sonko xaw ci moom lu bon lu ma xam ci moom buy ñëw benn massage lay santaane sama ginnaaw day metti bu ñëwee du sax maanaam massage bi 16 lay nekk day toog. def nii ñu commencé ko ginnaaw buy ñëw nan la ñuy bañ a xàmmee ne masse la xàmmee nañ ko. léegi suy suy ñëw day bañ masseuse si xàmmee ko day jël benn yére def ko ci kanamam bu ñëwee bu jëlee bu def ko ci kanamam day toog pour masse wu mosuma gis mu masse wu mu mu ko lu ginnaawam lay masse. Hmm. léegi léegi Adji ah. man maa ko boole ak Sonko pour mu koy masse. Euh, comprendre nga. bu mhm. mu koy commencé dimanche dimanche ba benn jour ay saa am ku mu doon waxal téléphone ne ko man de temps yi damaa damaa parce que may maa may may maa ko mhm. kooku ne ko dama bëgg ñu teg ko diin. su ah bon. su ci kër gi yëkkati sa téléphone nga wooma danga fexe ba nga am ci moom benn espère wala nga nga def nangam ak nangam.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 téléphone am sonné am ko ko woo benn oto bu ñuul kub ci jamonoy couvre-feu bi la. loolu yàlla couvre bii nii nii. Ah, bii passé hmm. bi mardi bii passé la. Hmm. mardi bii jour boobu noonu buy buy Sonko dugg ci kër gi ay vingt deux heures la. Hmm. ñooñu bu ñu gaaree. kon yow sama sës yi dañuy fanaan xanaa. waaw parce que couvre bi doo fanaan fan nga jëm. léegi bu ko defee euh, kii bi dafa am loolu ñu am loolu wàcc.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 yow li nga wax ni kan moo la ko. dama ci am dama ci am preuve yu leer. xam ne téléphone bu koy xale bu jigéen di wax bu koy xale bu jigéen bi di wax boobu am na ko toog di dégg. yow jour boobu fan nga ne mardi dama déggul bu baax quoi dama déggul bu baax waa ji daf ko ni boo amee esperme loolu la Ndeye Khady Ndiaye wax français Ndeye Khady Ndiaye après mu ne leerul mu ne. dafa am ku ko woo nekk dañoo bëgg ndox si Sonko dañoo bëgg ndox si Sonko waaye yaa xayti ku ñëw di joxe doxam lii bu la neexee nga maasé wu fa cinq cent fois est-ce que mën nañ fa am ndox kañ la doq di génne ndox kañ la doq di génne ndox léegi nday xadi nee na kooku bi mu wooyee aji def ko ne wutal sperme si sonko ah kon de sonko nangu na ñu am sperme ah waaw dem di maase wu nga xoole ba xale yi am sa sperme kon de jour boobu nekk na yaafuus ah neexu ñoo xale yii <laughs> mbay neexu ñoo mucc de réew mii eh léegi ñu toog ndey xadi nee na dégg na Sonko ak Adji Sarr ak beneen xale bu jigéen nekk ci biir di def 4 mai si noonu Adji Sarr yónni benn xale bu jigéen bu ne ko génnal xale bu jigéen bi génn si noonu mu dégg tuuti Adji Sarr ne saawaay daanu na eh saa waay lu ko daanal ah di njaay def nga foofu erreur parce que yaa wax ne que dégg nga saa waay dem na ardo moo tax nag test ADN bi saa waay nee na mu dee ñu suul ko moo ko gënal test ADN est-ce que bàyyi ngeen xel foofu bala man rek maa déggut bu baax ñu dégluwaat foofu tuuti oh tuuti tuuti rek waaw parce que foofu am na solo quoi saa waay daanu na. daanu na bi bëgg naa ñu xam lan moo andi ko daanu bi quoi. Euh, dangay ko man de temps yi damaa damaa aat parce que maay maay maay maasi président Sonko. Hmm. kooku ne ko dama bëgg ñu teg ko diin. ah bon. su ci kër gi yëkkati sa téléphone nga woo ma te nga fexe ba nga am ci moom benn espère wala nga nga def nangam ak nangam. comprendre nga. benn la. benn xaw man xaw waxee noonu benn ndox da benn expert xam nga Khady bi jàngut ku mënut wax expert ma naka la mën a defee massage thérapeutique ku mënta wax expert naan benn esper waa ji ne ko benn lan mu ne ko benn ndox Sonko ne ñii am nañu diplôme de massage thérapeutique de de de de diabétique ak yu kenn xamut ku mënul prononcer le mot sperme doy na waar. ñu continuer déglu déglu leen attentivement rek man waxuma yow waxoo ndey xadee wax ñu déglu. nga am ko ci moom. suñ ko wax suñ ko yóbboo ah. dañ xam ne moom ko moom. Ah. lu jógee ci moom daal. lu jógee ci moom na nga ba loolu kooku sant ko léegi jour bu see si kër gi jour boobu noonu am na ku mu fi ko moom xale bu bi ma boolekaal kooku leen ngeen def ko yéen ñaar. waaw wóoluwoo ko lu tax ba Sonko ñëwee. ngay bàyyi ñu koy maase te yow nee nga wóolu woo aji saar parce que am na ku ko woo ne nañu lijjanti sperme Sonko kon nday xadi complice la parce que yow mënoo ubbi sa bërëb nga yor say employé ñu fay liggéey am client bu nar ñëw nga dégg sa employé bi nar a lijjanti client bi di wax ak nit téléphone ne ko sperme laa bëgg waaw doo ko ne hee yow koy waxal téléphone di wax wax sperme nga dàq ko ci biti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 am ko ko woo benn bu ñuul kub ci jamonoy couvre-feu bi la. loolu yàgg bii nii nii. mardi bii paase bi hmm. mardi bii paase la. Hmm. mardi bii jour boobu noonu buy buy Sonko dugg ci kër gi ay vingt deux heures la. Hmm. ñooñu bu ñu gaaree. kon yow sa marché dañuy fanaan xanaa. waaw parce que couvre-feu bi doo fanaan fan nga jëm. léegi bu ko defee euh, kii bi dafa am loolu ñu ne wàcc.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 xam nga waxul noo daanu wut waaw lu daanal sonko hey lu daanal sonko ndey xadi ñëwal wax sénégalais yi lu daanal sonko ñëw to yëkkati sa yëri def nii ñu massage la daakaande la cuuraay la loolu mënul daanal nit lu daanal sonko xam nañ ne massage yi nu ñuy def pour nga dem ardo du ñu ay ngaaka wax ji leeragul de ñu déglu. waaw ñu teg sa oto ñu yóbbul hôpital pour jëm ndox bi ñu yóbbu ñooñu ñoo fay xale bu jigéen bi pour keroog Sonko. yow li nga wax ni kan moo la ko. dama ci am dama ci am preuve yu leer. preuve yu yoo xam ne téléphone bu. Ndeye Khady nee na am na preuve que gars yi jël nañu ndoxu Ousmane Sonko dawak moom dem hôpital waa Ousmane Sonko lu mu doon xoole ba bàyyi ndoxam Sweet Beauté man waxuma yaa xayti sénégalais yi. àtte leen dëgg Ndeye Khady patron wu Adji Raby Sarr. di doomu ndeyu Ousmane Sonko moone ne Sonko nërmelu na Ousmane Sonko dem na ardo Ousmane Sonko kat jël na jël ndox bi yóbbu hôpital waaye yaa xayti lu tax fëlul ndox bi tuuru yaa xayti ndey xadi fu mu nekkoon le temps ndox di génn ak génnut yaa xayti dama ni ndey xadi bi luus na de parce que dama xam ni yow nee nga dégg nga ay nit ñu ne ndox la nu soxla nga waroon jour boobu aji saar buy maase sonko ak beneen femme bi nga war a mën a ñëw toog assister comme du woon mbirub taatu neen mbirub yëkkati ndigg la woon sotti garab loolu yaakaar naa ni nga toog assister yow yaay borom béréb bi te sonko xam na la du wàññi dara mais sàcc ngeen film bi de lu tax assister woo lu tax fekke woo nërmelu bi lu tax fekke woo daanu bi lu tax fekke woo galgal bi ba mbot bi am doy na waat on continue xale jigéen di wax gars yi may leen kër bu xonq bi kañe yi ñu ngi may bopp bu mer bi après facebook day nekk di tee live bi trois heures de temps quatre heures de temps may leen kër bi rek yéen man lu si des dinaa ko gérer nañ dem ba koy xale jigéen bi di wax boobu am na ko toog di dégg. yow jour boobu fan nga nekk moom mardi dama génnoon. boo nee boo nee Sonko daf ñëw fréquemment yow fréquence bi nan la chaque chaque semaine la wala chaque weer wala nan. lu fi ñëw bëriwul parce que day toog benn instant chaque semaine yooyu mu ñëw ñëw dama toog 15 jours doo ko fi gis moom daal su voyage bu ñëw daf daf ñëw. Euh, léegi ma bëggoon xam bu fi ñëw bu fi ñëw euh, lay ñëwee day gaar otom fu sori day dox wala. buy ñëw day jaar otom fii si oto bu mel nan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 soo fi dugg si boo dugg si kër gi da xam ne fii place liggéeykaay la su ma ubbiloon salle ba nga dugg si salle ak climat ba nga ba nga ba dugg salle nga toog da ngay xam ne léegi lu tax moom moom moom aji mu mën a yegg à ce niveau da ngeen dem fexe gis aji laaj ko loolu. xaw ma ko. léegi yow danga na liggéey bàyyi la moo taxoon mu bàyyi. dafa am lu ñu ma waxoon ci moom ma ma njort ko. ma ma dàq ko mën a fen.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 gendarmerie bi na ko aji de déclaré fii ëmb daf dañ koo violé ko mu ne bëggoon a am dëgg moo tax ma ne damaa ëmb ma na ko te bu ma koy wax damaa am seede si kanam gendarmerie baa ngi toog bind na ko ajee ngi toog maa ngi toog gendarmerie bi na ko yow kan moo la fay pour nga na fee daanoo mën ah man de yaakaaruma ko sama àdduna <laughs> loolu moom.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 fii dafa xorom dafa am dafa am sanon maa ko teg sanon baa ngi nii fii massage moo gën a tuuti liñ ciy def moo gën tuuti liñ fi def kon fan la viol bi am viol la kenn le viol la nga yuuxu mais ci biir mën na am ko ci biir la mais du fii hmm. du wax na tamit ne ne que Sonko bu ñëw de yore ay arme ak affaire yooyu. loolu du ci biir kër gi musta am heure bu ñëwee maa koy tijji. Hmm.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 chaque jour mu ne sonkiñ la ñu jour boobu sama dëkk bi na ma aji mii am na lu muy programme parce que aji chaque jour day laaj sonk kañ lay ñëw chaque jour kañ laaj mën na ko ah ma waaw mën ah, loolu de maakaar ne ko yàqu viwu nit di zéro loolu naa ko mais kolo bu sonk ñëwee wóolu kii nii ñu ngi fii toog maa ko ko demal yow sonko buy ñëw avant daf leen dina am faral di leen woo ne leen mi ngi ñëw non loolu moom sama vie privée la hmm. ay wootee xam nga moom sama moom da doon bi def mu tudd nag ci duñu fen mm-hmm. bi merci fu mu jeexalee mooy Sonko ban massage moo ko fi doon indi femme bi nee na torréfiant waaye yéen ñiy jàng est-ce que torréfiant ak thérapeutique est-ce que benn la ah euh, est-ce que benn la je sais pas ndey nee na Sonko massage bu ko doon indi mooy torréfiant xaw ma luy torifiant na musuma mansew mais est-ce que Sonko mii ne thérapeutique la doon def ak torifiant est-ce benn la doy na waar ndey Xadi nee na dégg na fu gaay di ne soxla nañu daanoog soxla nañu ndox ak soxla nañu sperme mag waa lu tax moom mënul woon ne Adji Sarr arrêtel lu tax waxu kooku yéeme na de am na lu làqu si suuf lan la loolu bëgg nañ ko xam de du benn ah, terrifiant ak ak thérapeutique c'est c'est diamétral opposé kon du benn waaw léegi ah mbir mi yéeme na de te ba léegi comme niñ koy waxee rek am nañu si def jàngat bu bari am na ñu ni comme Sonko moo doon ne dafa bëgg justice def liggéeyam Adji Sarr ne dafa bëgg justice def liggéeyam yaa xayti justice mu ngi def liggéeyam te ñun sénégalais yépp nga xam ne fekkewuñu ñu ubbi suñu ay gët seetaan bés baa luy xew gënut yomb ñu bañ ci xeex bañ ci xulo seetaan dàq si ndaje di gënut yomb sonko am na lu ma waxoon balaa may ñëw lu sonko waxoon ah dama yaakaar damay ñëw si lu kii waxoon parce que sonko ba muy dem Sweet boote moom nee na foog naa ni ba mu eggee foofu dafa jaawale seen wax yi daal ba léegi day jiwaloo rek day jiwaloo de ñu déglu am na lu gars yi waxoon ci kër gi 2019 la tombeel jour boobu ñu ngi tombeek jour tabaski man kese maa nekkoon ci déglu leen Ndeye Khady mii moom Sweet boote mu ngi expliqué nan la Ousmane Sonko def ba jóge këram ñëw si Sweet Beauté ak Ousmane Sonko lu mu wax moom demul directement Sweet Beauté dafa jaawaleek ak yu kenn xamut ak benn xaritam ak doy na waar c'est compliqué allahu alam yàlla rek a xam ñu dégg. ci kër gi 2019 la tombeel jour boobu ñu ngi tombeek jour tabaski man kese sama nekkoon ci kër gi ak sama jëkkër ak sama benn doom bu jigéen jour boobu bu ñu fiy ñëw mi ngi ñëw ay diggante 11h jëm midi bu mu ñëwee mi ngi fekk maa sama jëkkër ñu nekk si wanag bi di defar suñu yàpp xar tabaski mu sone ma tijjil ko jour boobu la nekk première fois bu ñëw ci kër gi. bi ma ko solalee mu tëj mu ne ma fii c'est Imosène ma ne ko noonu fii Sweet Beauté Spa la. mu ne ma ah ma ne ko waaw ma ne ko ama euh, seen boobu ngay wax de am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy jaawale sama numéro ak numéro numéro Imosène moo nekk 824 33 824 99 29 sama numéro moo nekk 800. non waaw. 842 waaw 842 99 29 xam nga numéro yooyu benn chiffre moo leen tàkkale. yaakaar naa ni Ndey Xadi Olof la làq nee na Ousmane Sonko bi muy ñëw Sweet Beauté dafa sone ne leen est-ce que fii mooy Imosène ñu ne ko noonoo fii du Imosène Ndey Xadi mi moom bërëb bi moo ko wax moom lu mu wax ak sonk lu mu waxit am na différence ñu déglu Ousmane Sonko lu mu wax sama benn xame ñu ciy waxtaan mu ne ma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 jaawale numéro yi moo ko indi fii moom Ousmane ah dugg see de loolu la ma wax. bu mu dugg see daf ma wax carrément jour boobu ngi téye benn forote. forote bu cher sax. mi ko téye si loxoom parce que forote bi man leer ma ne forote bii kii du forote nekk forote boo xam ne nii. ah. am na yéen a ko déggandoo lu Ndeye Khady wax ak lu Ousmane Sonko wax olof la ñuy làq ba léegi. bi ngeen dégloo ndey xadi dafa ni dañoo toog am ku sone kër gi mu ubbi tombek muy Ousmane Sonko ne ko est-ce que fii mooy Imosène déedéet du Imosène Sonko dem ñu déglu Sonko Sonko mu ni benn waayam moo ko ni am na benn bërëbu fajukaay bu am solo boo xam ne ndaw si ak jëkkëram yépp ñoo dëkk si kër loolu moom ndey xadi la doon wax ak jëkkër ji kon kay pour man waa ji jox na ko adresse bu demee sone du laaj ay waxu Imosène dina ñëw ne ko yow la Ndeye Khady fii lañ ma doon wax te lu Sonko wax mooy ba mu duggee laaj na leen ay seen i agrément seen i kiiwag mën ngeen fajak patati patata waxi am na lu si ndroowul yaa xayti doy na waar leeragul moom nag moo tax ñu ne sénégalais yi ñoo bëgg lu leer bu fi Kaliphone toogee di wax du leer bu Tunkara toogee fee di wax du leer bu Babacar Touré toogee di wax du leer bu beneen nit toogee wax du leer lu koy mën a leeral mooy ñoom ñaar Ousmane Sonko ak Adji Sarr taxaw devant tribinal tribunal mooy leeral lépp sénégalais yi xam après nag bu Sonko amee victoire ñu xam bu Adji Sarr amee victoire sénégalais xam ginnaaw loolu mbindeef mënul leeral li fa amoon ñu continuer parce que am na ñu si def jàngat de comme jàngat bi ma wax léegi kii wax na si barki démb ñu déglu seetloo procès boobu dafa nekk procès boo xam ne man bëriwuma lu ma ciy àddu wax dëgg yàlla mais fii ñu toll nii wax ni nañu ko teg ci suuf pour man bëy weesu na na mbuus loolu weesu fii ñu tollu nii ñu jàpp dat pour man procès bi dafay am te dafa war a am lu tax ma wax ko dama déglu Ousmane Sonko déglu aji Sarr ñoom ñaar ñëpp ñu ni dañu yàkkamti procès bii am man Ousmane Sonko ak Adji Sarr toll nii ku ci nekk yaa ngi dund victim nga ci procès bi ak 14 morts yi nga xam ni deewoon nañ ñu war cee ñëw après Ousmane Sonko chef de président de parti politique la boo xam ni mën nañ wax ni tey parti opposition bi gën a mag presque Sénégal moom la mm. depuis deux ans mënul génn Sénégal depuis deux ans militant bi nekk gàmbi gii sax mënu koo seeti. Mhm. yorul passeport am. muy dem di wuy ji presque chaque vend premier vendredi du mois xaw ma di dem di ko wuy ji. kooku depuis deux ans li muy dund lu metti la. parce que mhm. dafa taxaw. Kër Massar ma suivre ko parce que man nit buy wax aussi da ngay suivre même gestuelle bi. mu ne ñaari at a ngi nii li may dund. Mhm. ku dul yàlla ak man sama njaboot xamuloo ko. aji saar ma déglu ko mu wax ma gis ko mu bind mu ni moom amatul vie amatul dund moom mënatul sax génn këram waa leader politique bi mënul génn Sénégal ak jigéen bi la porte plainte te mënatul génn këram te li koy leeral mooy ñu taxaw ci kanamu yoon layoo ko ñu toll ci waxtu woowu je pense que ñoom ñaar ni niñ ko waxee woon ni soxla nañ procès bi ñu vidde ko ñu passer à autre chose man dama jàpp ni soxla nañ loolu buñ ko vidéowul aussi dafa am quatorze personnes yu ci ñàkk seen bakkan yoo xamante ni conditions yi ñàkk seen bakkan war na am enquête ñu xam nan la demee waaye aussi li nga xam ni mooy sabab bi muy procès bii war nañoo xam ndax liñ ñuy wax dëgg la wala ndax complot yi ñuy wax daf cee am te loolu jàpp naa ni aussi yoon rek moo ko mën a leer ah. ay sénégalais yoo xam dañ ci subiir ay préjudice si la seen business yàqoo ba léegi mooy dañ fekk seeni mbir ñoom seen yoon nekku ci ñu yàq ko rajaxe seen ay bagage ak yooyu donc procès bi dafa toll foo xamante ni indi na loo xamante ni Sénégal même l'état du Sénégal dund na ci moom it ay mbir la magistrature aussi dund ci ay mbir parce que ñoom lañ ci gën a jiiñ ñoom lañ ci gën a bashing ci réseau sociaux yi donc je pense que tout le monde tey ñëpp dañu am intéret ki nga xam ni président wu parti la bi nga xam ni ñaari at mu ngi dund ni mënul génn Sénégal nekk ci contrôle judiciaire kooku soxla na procès ñu vidde ko mu jàll ci leneen ki nga xamante ni Adji Sarr jigéen la junni mënatul génn këram dem fenn je pense que soxla nañu vidde ko ñu dem feneen ñi ci ñàkk seen bakkan soxla nañu ñu xam mbir mi causé woon lii ci Sénégal lan moo ci dëgg lan mooy ci dul dëkk man position boobu laa ci am di ñaan yàlla comme niñ ko ubbee lépp lu ciy am mu nekk loo xam ni jàmm lay jur pour le Sénégal justement dafa mel ni dina ñëw man enchaîner waale ak euh, yaakaar naa ni lii kilifa gi wax moom la Sénégal wax moom la Sonko wax eh moom la Adji Raby Sarr wax Adji Sarr dañ ko ne est-ce que bëgg nga dem justice mu ne je dis oui pour un procès Ousmane Sonko ñu laaj ko mu ne man yàqamtuwuma lu dul dem procès moo tax mu avocat waaye yow mi sénégalais nga xam ne doo si ñaari salaamaaleykum lu tax nga bañ procès am lu tax nga ne ku wax procès nga ne da koy door lu tax nga ne ku wax procès nga ne da nga koy saaga mais fii procès rek moo mën a àtte nit ñi bu ko defee yéen waa Sonko yi Sonko dina andi ay preuve am yéen ñi ànd ak aji saar it aji saar andi ay preuve am bu ko defee sénégalais yépp xam et puis ñu jaar ñu jàll si leneen mais mun nañu toog depuis Mamadou Dia àtte fi ku ne kilifa bu ne ñu toog benn Ousmane Sonko di un sénégalais di citoyen di ndaw justice soxla ko ay nit yi tekkiwul ñaari salaamaaleykum ñu ne kooku kenn du ko àtte ci mim réew ah jugement bi bu amutoon nag ba yeboo ñu dem ba gàmbi ñu ne président Gambie est-ce que soxla na Sénégal mu boole ko ci biir Gambie mu ne waaw ñu ne ñool ñu jaay la ko eh jugement bii bu amutoon mën nañ dem ca président Mali ne est-ce que soxla ngeen Sénégal ñu dolli ko ci Mali pour mu gën a yaatu ñu ne ko wii mu ne ànd leen ñu jaay leen ko ñu jox Sénégalais bu ne xaalisam parce que dëkk nag justice day fort parce que nul n'est au-dessus de la loi <laughs> da ngeen di fontu rek ana ñi ne woon dossier classé sans suite Où sont les Babacar Touré Où sont les Papes Alénians Où son les Tunkara Où sont les Pastefiens Vous êtes où actuellement yéen a ngi dundam dossier classé sans suite dossier bi di mujj fenn kenn du atte Ousmane Sonko ci mim réew mais Ousmane Sonko mooy kan il est le plus petit ci politiciens yi ñu xam yépp fu mu tooj ak lu mu am lu yeneen sénégalais yi ñu mës a jugé amuñu ana Khalifa Sall juge nañ ko fii ana Idrissa Seck juge nañ ko fii ana Karim de doomu président de la république juge nañ ko fii ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite léegi benn Ousmane Sonko un jeune politicien ku amul jàngul formation politique def njombe yow la wala du yow ay nit taxaw ne kooku kenn du ko juge eh bu jaree dem ba Guinée Conakry luwe ji ay policier ak ay gendarme pour procès bu mën a am gars yi dinañ ko def parce que nag dëkk de droit la nekk sinon nag ñu xam ne nag état fayit na man ba may am jafe-jafe ay weer ci ginnaaw dam leen ko waxoon nee naa leen bu ñu woowee Kaliphone devant la justice ñu xool Ousmane Sonko woowuñu ko devant la justice dinaa jox lu waa Pastef di wax dëgg la mooy dëkk bi amul justice histoire jox na ma raison histoire jox na ma ne Kaliphone justice ba mu la woowee soxla la dem nga Ousmane Sonko it justice dina ko woo dina ko soxla dina dem par la force fii ñëpp yem ci justice doomu kilifaak doomu sëriñ ak doomu taasukat ak doomu jaaykatu ndambeek ainsi de suite ainsi de suite fii ku yoon soxla da ngay wuy ji yoon Ousmane Sonko tojut fenn bay waar a mën a tax am ay yambar yi toog si réseaux sociaux yi Sonko du wuy ji Sonko du dem patati patata ana yambar yi doon taxaw naan Sonko du dem ak Sonko du dem dama ni préparer leen seen le 16 ngeen ñëw andi si table yi sénégalais yépp xam lan moo amoon ca suite boote ba sénégalais yi ñoo bëgg comprendre ñoo bëgg xam fekk kenn du ne yaa waxoon wala waxuma déglu nañu kilifa bi wax léegi dañuy dégluwaat beneen sénégalais moom it xalaatam gars yi publicité publicité dinañ ci ñëw damay bañ a déconcentré wu si live bi live suite boote la ñuy wax kee comédie lay def di ree bëgguma yàq live bi quoi on est sur des choses sérieux ngeen jéggal ma tuuti ah allez ñu dem voilà kenn bañu Ousmane Sonko kenn bañu ko kenn kenn kenn amul amuloo moom problème moom moo bañ boppam moom moo mënul tëj gémmiñam moom moo nekk di tooñ nit di jiñ nit ñi sàcc di diingat di tuumal di sos di wax lu dul dëkk affaire bu mu ne tell dafa waroon taxaw ne sénégalais man maa dem suñu boote maa ngi jéggalu samay soxna maa ngi jéggalu samay doom maa ngi jéggalu samay militant maa ngi jéggalu samay sympathisant samay àndandoo ñi nga xam ne def nañ ma confiance man de maa doon foofu pour bégal sama bopp Sweet Beauté di détendre parce que centre de détente la du centre thérapeutique léegi nag ndogal yàlla dal na ma foofu lii nag ñu ne def naa lii mais def naa lii mais defuma lële wala pour le moment damay démissionner ba problème bi jeex waaye nga moy ci benn affaire ngir nguur bëgg nguur mu jaram la ngay sacrifier suñuy doom nga ne danga demoon faju yi foofu est-ce que Sweet Beauté dañu fay fajoo kenn du fa fajoo laaj nañ ki moom Sweet Beauté ndax dangay faj mu ne duma faj xale bi ko doon dàmp di ko tripoté laaj nañ xale bi xale bi ne man Sweet man li ma xam mooy massage sensuel moom nam neex body body yaram ak yaram xale bi day ko ba set tëdd ci kaw waay ji dafa bërëngu mel ni benn bul loolooy body body ak massage américain xale bi neen loolu xam loolu xanaa ay jabaram mën nañ ko def lan la wuti woon foofu heure de couvre-feu ñépp di nelaw nga ne li nga yëg sa yaram ba dem foofu yow rek yaa ko xam am nga métit bi nga xamante ne toll na noonu mënoo ànd ak sa garde corps mënoo yóbbaale say jabar ginnaaw ko Adji Sarr am na qualification boobu kii day fontoo nit ñi sénégalais nag dañu amoon ci moom yaakaar <clears throat> ngeen baal dafa amoon ci moom amoon ci ñoom moom yaakaar mais yaakaar ba tas na kon ñoom sénégalais bu ñu tas yaakaaru Sénégal di dem di xaru di ànd ak kii nga xamante ne dafa joxe bakkanam ci ay maali forom parce que maali forom mooy nga jóg nga ne yow da ngay dem faju ji fa nga xamante ni dañ fay raayante nga dem ñu raay la fa ba musiba dal la fa nga génn nga ne Macky Sall moom moo buntu xatal lan la Macky Sall di dox ci loolu. Ah, ñu ne déetoowaay nga ne général Fall déetoowaay nga ne Antoine Diome déetoowaay nga ne membre du guvernement yi. loolu yëpp ñu ngi koy dox pareegul nga dem taxawaat nga ne Mame Mbaye Niang sàcc na looloo problème bi problème bi mooy na soo ko dem régler ay problème na génne rapport bi dem joxe ko Mame Mbaye Niang nee na xuloo ma xeexu ma nga bu joxewul firnde dañ koy tëj bu buggul ñu tëj sukk jéggalu ñaan Mame Mbaye mu baal àq bu dee loolu nag munu ko xam na am na rapport bi le 16 bu ñëwee na ko na na dem joxe rapport bi coow li jeex lii jarul dajale ay doomu jàngul jarul dajale ay sénégalais jarul dañ ko bëggoon a sécuriser mu bañ gars yi ko wàccal mu bañ ñu daal daj oto bi génne ko fa parce que les ordres sont des ordres l'ordre est l'ordre waaw. am na solo donc ñoo ko déggandoo loolu réaction yenn sénégalais yi la waaw fii la lépp di xoyom xoyomee fii la lépp di leeree et pourtant Ousmane Sonko am na lu mu waxoon ah nee bu la politicien jaral ngay xeex de bu la politicien jaral ngay xuloo de. bu la politicien jaral nga joxe sa bakkan lii la Ousmane Sonko waxoon ay jamono ñu dégg yaakaar ni toll nga foo mënee ak foo amee doole demal bay demal gori demal def loo xam ne mën ngaa jàppale say njaboot say say waajur parce que sonn nañ ci yow demal def loo xam ne mën naa jëriñ sa askan moo gën nga ay nit di la ji utiliser ay politiciens su dee violence politique yoo xam ne seeni doom ña nga Canada ña nga États-Unis ña nga feneen wala suñu ñi su dee ñibbisi nañ ñu ngi ci ay grande société di liggéey di leen puus ñoom ñuy dem di reyante loolu dafa jot nit ñi xippi seen bët. ah Sonko waxoon li de jamono ji Sonko yóbbu na doomum Canada léegi yéen ñii doomu néew di doole beeg doomu wala kaana bi Sonko ngi leen di génne pour ngeen xeex ku si dee yaa perte de imaam keroog wax na ko de ku si dee safaray sa kër xeexoo pour diine gi xeexoo pour vie bu cher ci Sénégal. da ngay xeex pour benn Ousmane Sonko na falu loolu du farata de pour ngeen xam ko du farata te it coow li coow li Baara Njaay mii di rëy làmmiñ trompeur bu mag ba am na lu mu waxoon ci mbir ya de ah waaw nee na Sonko loon pour faju ji ca suite boote ñu fàttaliku leen rek Baara waxoon li de Baara. di déglu Baara. Ablaye Lo ma seetaan Baara trompeur déglu leen yëpp mënuñoo lay. dinaa ko lay lay jub yoo xam ne nii bu ñi nga xam ne maanaam gars yi dañuy nax rek naan ñu ENAM ak concours ak sëñ bi amut benn école buñ naan fii dañuy jàngale ñu itum réew amut gars yi yëpp dañuy sóob hmm. yërëm naa nag ki jàpp ne gars yi sóobuñu ba mu Macky Sall sax day nappaate amul fenn fu ñuy jàngalee conseil de ministre amul fu ñuy jàngalee débat politique toog ci plateau sa xarit wéewale nga ñëw toog dafa si yéene ne wéewalewul yooyu amut de amut fenn hmm. man fii ne xam gi ma xam ne Ousmane Sonko daa dem ca euh, massage kat ba wóor na ma ne moom liggam méttiwul wóor na ma ne maasaas yóbbu ko fa maanaam ci loolu nag fii ne nii ci laa ko mën a raxase ba mu set wecc te Basiiru sax moom fii ne daa demee ndaa mel ne daa gëm ne Sonko moom da doon da doon maase wujj Sonko maase maase wujj couvre-feu bii lañ tëj dëkk bi gaa yi mënatuñoo dem mbuur faju ji te couvre-feu bi day waaj a yàgg ñi daan làqu yu mos ñëpp dañ koy forcer gis nga Youssou Ndour barki démb toj leen Sonko toj leen bu subaa da nga dégg keneen ko toj ndax man yu mi moom bëggee génn day booxu te yi mënatuñoo dem Maroc ndax dañoo tëj frontière yi France dañoo tëj seeni frontière mbuur gi ñu daal làqu di ko def bu neuf jotee xale bu jigéen bi mënatut a génn fii séminaire yi mënatut nekk li nga mën mooy xaj-xajal xaj-xajal waa xam nga ne Sonko mu toog ba vingt et une taalub otoom moom jenn jëmmam jooju képp man dong man mii du ma dox guddi man képp di ànd moom dong taalub otoom dem dugg ci kër di seetu jigéen sëñ bi. salaamaaleykum sëñ Abdourahman man daal boo bëggee dégg dëgg lii may bëgg a wax moo fi nekk maanaam nag doon naa xaar nag ba papa waaj nekk di di audio ma mën a ma mën a tafu ci waaye comme nag xaar naa ko ñëwut baal ma ma jëngu ko rek waaye daal Ousmane Sonko li ngeen koy giiñ ci boppam ngeen war a taxawal xool ba xam moom la am déet moom daa nekkoon impôt domaine képp. Macky Sall dàqe ko ca injustice génnee ko fa ñu ko ñu di ko farale Macky ci cuuneem lay tabax Ousmane sonk képp di ko xeex muy jéggi obstacle yi waaye Sonko moom maanaam man damaa gëm ni ku dul Adama Baro fii ci Afrique Sonko maanaam Sonko gënu laa yeewu Adama Baro daal laa xam ne moom Sonko moom buñ ko faroon mooy tane Adama Baro waaye ñi des ñëpp ko gën a intelligent te lii da koo wane Sonko moom damaa xam ne ma koy xool ba mu yàgg da xam ne kii maanaam ku ñëwoon na ko bit sa Sénégal baa ngi nii avion baa ngi nii réew maa ngi nii yéegal nga léegi yaa moom réew mi maanaam bu waree avion bi fu mu jëm Sonko nga xam ne Gàmbi gi doo nga xamu fa dara maanaam moom daa yeewut moom wax dëgg yàlla ñàkk a yeewu nag moo andi lii Sonko benn yoon la mas a dugg ci palais ci àdduna ci àdduna muy palais Dakar bii mooy keroog coronavirus bi te gis nga ko ba mu fay dem histoire Ousmane Sonko bis bi ma ko gis mu sol li gën a seer ci àdduna mooy keroog bi ñu koy witee palais nga xam ne maanaam lu mag la doon def ci moom daa yeewut Euh, Sonko yaakaar naa man mosuma gis muy benn président ci àdduna bi amul benn palais bu mës a dugg ci àddina bi tamit kooku daa tëju xel mi xel xel mi moo ñur mooy dëgg yàlla noo ko tooñ nag ndax fii la nekkoon moom li xam mooy liggéey bu weer dee bu fayeeku nun nag di jay nit di jay nit gis nga ab sëriñ moom man nga koy jay ndax li ngeen seen contrat yow mal xeyaam la te yow mal xeyaam moom bu fa dee dara leer rek moom ak seguñ ko waaye fii moom looy chargé nit naan ko yaa fi ne yaa ne na fekk mu man ko yow koo xam ne candidat boo xam ne yow nee na la damay làkk wi ñuy jàng dama koy changé xaalis bi ñuy yor CEDEAO France ah système éducation bi système judiciaire lu nekk mu ne danaa ko laal jigéen <laughs> Sonko wóor na yàlla Adama Barrow daal moom laa xam ne mooy ndaare moom ci président yi Sonko ci doon topp moom heureusement nag xam ngeen ki waxam baarale baarale baarale bi toog wal fajri di ñoo di ne oustaz la ak sëriñ la di naan sonko fii gën eh borom réew bi ñëw na moo doon yàq sonko yi yëpp de waa baarale wax na leen yéen sénégalais yi compétence su Ousmane ne leen leen ci àdduna bi ba mu daj benn nit la xam ne sonko tane na ko. mooy aadama Barrow <laughs> kon Baara lay daa yëpp Adama Barrow sax fan la aadama baro fan la ko Sonko gënee waa nee na Sonko da doon dem Mbuur di dàmpulu ji ak ñoom maro léegi tëj nañu frontière bi man maniw bi bëgg na génn Sonko dem na ko tuur suite boote kan moo wax lii barale ngeen duñ ko wax audio yi baarale si boppam gis ngeen weddiwu ko moom la ngeen duñ ko wax yéen du ngeen ay nit te ngeen lu baara wax seen waa ji de ki ngeen naan kilifa laak patati patataak yu kenn xamut waaye nag bu leen fàtte nag lu jàng ji neex-neex aji saar am na lu ma xoon de ñu déglu aji cey aji ñu déglu Adji Sarr, bonjour. Bonjour. Vous avez porté plainte donc pour viol il y a plus d'un an contre Ousmane Sonko. Vous en êtes où aujourd'hui dans la procédure euh, judiciaire? Non, instant moom. Pour le moment, je ne sais rien du tout et je n'ai pas de réponse. J'attends. Personne ne me dit rien, c'est long. C'est comme si la justice avait peur du gars. Vous avez dit dans, votre plainte que vous avez été victime de plusieurs viols qui se sont déroulés à des semaines, parfois d'écart. Pourquoi avoir porté plainte une fois qu'il y a eu plusieurs viols, selon ce que vous dites Qui suis-je pour porter plainte contre Ousmane Sonko C'est ce que je pensais avant de porter plainte. Au début, je me disais que personne n'allait me croire. C'est au moment où j'en avais marre et où j'étais fatiguée que j'ai décidé de porter plainte. À cette période-là, votre nom a été divulgué dans la presse, vous avez subi euh, des insultes, des menaces euh, dans la presse, sur les réseaux sociaux. Comment vous avez traversé cette période Je mangeais pas. J'avais tout le temps peur, même en allant à la douche, je portais mes habits par peur d'être attaquée. Et vous aviez peur de quoi j'avais peur violences, tout le monde m'insultait et même ma propre famille avait peur de s'identifier à moi. Ma famille craignait de m'appeler au téléphone ou de venir me voir de peur d'être tuée après. Il n'y avait que moi et ma peur. J'avais peur de sortir et d'être reconnue, ce qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et justement, euh, aujourd'hui, de quoi vous vivez Je vis avec ma grande sœur, ma petite sœur et avec une tante. Il y a une association qui nous vient en aide. Bon, pour les protéger, je ne donne pas leur nom. Je suis tout le temps obligée de déménager. Ma tante qui est restauratrice m'appuie aussi, mais sinon, personne d'autre ne m'aide et je dois déménager tout le temps. Un an après, dans quelles conditions vous vivez et qu'est-ce que vous faites toutes vos journées tout le temps maa ngi sama nekk. je suis tout le temps entre le salon et ma chambre je ne peux pas aller sur le balcon ni élever la voix pour ne pas réveiller les soupçons et pour que les gens ne m'embêtent pas je fais rien à part prier. à part prier et tout ça. est-ce qu'aujourd'hui vous avez encore des séquelles des violences que vous dites avoir subies. je prends des médocs et je prends de médoc et je, je pas je me drogue pour dormir. tout le temps su ma tëddee tout le temps j'ai peur que les gens viennent m'attaquer durant mon sommeil. pour attaquer la pour elle. est-ce que vous avez une aide médicale ou autre pour surmonter euh, ces euh, traumatismes. J'aimerais que quelqu'un m'aide pour que ça s'arrête parce que jusqu'à présent, je ne dors pas. Dans ce pays, il n'y a que le pouvoir qui marche. Si tu n'as pas d'argent et si tu n'as pas de pouvoir, tu n'es pas considéré. La justice est à double vitesse. Mais comment vous imaginez votre futur? au Sénégal xalaatuma ko sax Je n'y pense même pas. Je pense partir et revenir en force pour régler beaucoup de choses. Au Sénégal, les femmes combattent les femmes. Ce que j'ai vécu, je ne veux plus qu'aucune femme le vive. Il y a eu des municipales, des élections municipales au mois de janvier. Ousmane Sonko a été élu à la tête de la mairie de Ziguinchor. Comment vous êtes senti le jour où vous avez appris sa victoire parce que c'est incroyable. Quelqu'un qu'on a accusé de viol et qui devient maire, alors qu'avant d'être accusé de viol, il n'était rien du tout, seulement un simple député. On l'accuse de viol et il en a profité pour en faire un dossier politique. Ce qui me fait le plus peur, c'est qu'il a de plus en plus de pouvoir. Euh, qu'est-ce que vous attendez de l'État Qu'est-ce que vous demandez à l'État sénégalais Je ne veux rien d'autre qu'un procès. Et comment Toute personne qui veut me soutenir doit m'aider à ce qu'il y ait un procès pour que je puisse retrouver ma vie d'avant. J'en ai trop besoin. Adji Sarr, merci. yaakaar naa ni ñoo déggandoo kàddu Adji Sarr loo ko mës a lan nga bëgg mu ne la bëgguma dara lu dul procès kon nag kii am na lu ko métti lool te yaakaar na ni procès moo ko si war a mën a jàppale bu procès ñëwee. sàkkuwul ndimbalu juge sàkkuwul ndimbalu procureur nee na lu mu yor lay ñëw wax sénégalais yi li lii ak lii ak bu ko defee sénégalais xam seen waa ji ñu am di Ousmane Sonko mooy kan. si noonu sax aji Sarr commencé woon nañu ñamal as tuut si lu jotoon a am ñu déglu lii moo fa doon am ca suite boote. chaque jour damay ñaan yàlla may ñu ñu jàkkaarloo maamu. tu sais. yéen a ngi dégg chaque jour. aji saar da doon ñaan yàlla may ko procès yaakaar naa ni ñaan boobu mujj naa nangu sunu borom nangul na aji saar pour mu janook Ousmane Sonko ca tribunal ñu daal di leen àtte ñoom ñaar bu ko defee sénégalais xam ku am dëkk ñu déglu. yàlla may ñu ñu jàkkaarloo maam tu sais jour 31 décembre nee na benn novembre dem na ba benn novembre tijjil ko j' euh, dama ko fàtte wax wala mais bu ma waxoon novembre boobu dina xam kan la ko mu retourné waat parce que il ne pouvait pas partir dem te 32 31 décembre ak man mu waxaat novembre bi non ouvre la porte je ressors jour boobu noonu waxuma robe rouge bi kese. wax na ma yeneen ak yeneen ak yeneen même si seen politique boobu noonu nee na moom xam na ne gars yi nañ ko daane te gars yi bu ñu ko daane am na keneen koo xamante ne moom lañ war a teg moom wax na loolu nee na Pastef continuera man xaw ma woon sax luy Pastef mu ngi naan Pastef man maa ngi foog ne ay Pastef lay wax yu kenn xamul xaw ma woon sax luy Pastef. yow yàlla dala lii benn créature ne mais créature bu unique la ne yow ku du ma semaine su ma ñëwaatee nga melaat loo xamante ne mosoo xam ko. keroog dañuy waxtaan ma ak sama benn xarit mu ne moi je crois man xam naa xam naa ne moo jiitu sa kaw mais lii boo ko waxee bi ñeneen j'ai pas besoin que kenn gëm mais même même moom di wax ci man wallaahi lazim man mën naa teg sama loxo ci kaamil ne neex ko parce que moom xam na ne xale bii liñ ko fi waxee yëpp du moom parce que bu nekkoon pervers bu tàgg bu mu dindi du ma mës a jël décision bi def ak muy muy moom ñëpp. ni ma ko ni ma ko tëral ci àdduna su ma ko jamoon mu yem fa mu dee ñu ne da ko doon violé mu jël ko wala yow ñu tëj ma. maintenant esprit bi ma yor léegi maa ngi bu ñu jàkkaarloo yëpp. Ah, déggandoo. nee esprit bi mu amee. moo Sonko bu ñu janoowee tribunal sénégalais kontaan. ah wure ba dem na këng waxu mag dem na ndeñ taali faaw jël la am de match nul bëgguñu ko de. renvoi bëgguñu ko de acca acca acca yàgg na yàgg na yàgg na ñu déglu balaa ñuy egg la see sa tribunal lu Adji Sarr jotoon a wax Ousmane li mu bëggoon ci àddunaam ñu déglu pour un jour man ci li nga xamante ne jour boobu noonu xaw ma lu ko def daa daa def ak ci ci ginnaaw la see ak man ba pare subhanallah onze billahi minal sonko si ginnaaw léegi nag sonko lii la bëggutoon jamais à vie jour tribunal aji taxaw monsieur le taxaw mu naan daf ma doon tëddee ginnaaw ndaw gàcce ay nit nee nañu dañ la yaakaar yaay seen kilifa diine yaa leen gënal seen ndey yaa leen gënal seen baay ab xale bu am ñaar fukki at taxaw naa ni yow daanoo bëgg si kanam yow ci ginnaaw moo la doon gënal si kanam loolu gàcce la loolu même fa bu ñu demoon loolu defet la si Sonko subhanallah ay yàlla suñu borom am na ñu bëgg lu neex de <laughs> oui loolu yi mënu ma ko eh! la ilaha illallah Sonko ginnaaw Sonko foofu la gën a neex fépp non balaa may ñëw foofu faa ñu dem publicité waaye gars yi may leen kër ñu dugg publicité eh Adji Sarr xamadina de la ilaha illallah yow kilifa gars yi gars yi nee nañ sonkoo leen gënal seen sëriñ gars yi ñu ne sonko leen gënal seen papa gars yi ñu ne sonko leen gënal seen yaay gars yi ne leen sonkoo leen gënal sax seen yonent bi ñu am yéen ngaw toog aji saar nga naan ay ginnaaw ak ay kanam ak amal cër tuuti waaye amal cër tuuti waaye amal tuuti ah amal cër tuuti aji saar loolu moom Sonko taxaw tribunal ñu ngi koy wax ay ginnaaw ak ay kanamak no non non non non boobaa moom baaralee rek lañuy jox micro central bi bu ko defee mu daal di noddu allez baara ngi noonu borom dëkk bi <laughs> jour tribunal nii lay demee baaralee la ñu jox port entrée mu daal di dugal mbërëm kan mooy mbëru baara Ousmane Sonko borom dëkk bi ñëw na borom dëkk bi ñëw na eh! borom dëkk bi ñëw na borom dëkk bi. oui borom dëkk bi ñëw na. borom dëkk bi ñëw na. borom dëkk bi ah, waa Pastef. ànd ngeen pour jour ji le 16 ñu jox baarale mu yore micro central daal di dugal seen waa ji seen mbër ñun dinañu dugal suñu mbër xam nañ nuñ koy dugale yéen seen mbër baaraa koy dugal te bëgg nañu lii mu waxaat ko boroom dëkk bi ñëw na ñu déglu baara borom dëkk bi ñëw na borom ñëw na ah ay jour bu baara bu ne gaa yi borom suite boo te ñëw na ah ñu déglu aji saar lu mu waxati woon. un jour man ci li nga xamante ne jour boobu noonu xaw ma lu ko def daa daa def ak man ci ci ginnaaw la sëy ak man ba pare daanu xoolal si ginnaaw ci jacuzzi bi daanu ba pare toog lu yàgg ne ma kaay ma ñëw taxaw ci paagul yi mu ne ma xam naa ne bi ki nga gën a bañ ci àdduna man la. ma noppi ma ne pat fi ma toog parce que ñemewuma ko mu nekk nga ban nag gën a bañ ci àdduna man mais juste bu fekkoon ne samay jabar foofu noonu lii la ibaadu la man ibaadu wax na ma ne ibaadu la moo tax am na yenn yoo xamante seen yoo xamante ibaadu ginnaaw te moom loolu da koy ma ne ko kon ñemewu ma ko wax mais maa ngi wax sama xel kon ci lii moo tax ki mu ngi dem ci parce que ñemewu man ñemewu ma wax sax ma teg sa baat imagine toi yu ñuy def ci bisaab pour mu sax mant moom loolu loolu la ñuy def ci chocolat yëngal ko ko ñii ne parce que dafay am mant xale yu jigéen ñoo koy defar mais bu moom bu ñëw spécialement day nii dafa am paquetu espace euh, paquetu lii euh, nii boo xamante ne imagine toi police Sénégal luñ nekkee luñ def ñoo ko tey wala luñ bëggul def ñoo ko tey mënuñoo jàpp Kya Sow ko ne ko boo ñëwatee dañ lay téye à léegi problème bi am ñu xam ne Kya xam na loo xamante ne man mii sax xawuma ko kii yaa sa Sonko daan ko mu tëral ci fii yi ma xam imagine to ba mu defee déclaration sama téléphone barki alxuraanu karim bi mu jot sama dëju yàlla la wax yàlla bu ma am dara bu man sax loolu dérange mais xool ñu may naan mais kii yomb na fen ay xadu jigéen yoo xamante ne bu nekkul woon na nga xamante ne bëgguma suñu waa kër xam ne dama doon liggéey maasas ñi nga xam man ragal naa bëgg naa même fekkee dañuy def ay témoignages kenn duñu gis ma ne ko mais loolu bu ngeen ko defee dañuy wax ne c'est pas vrai nga ne son Ousmane Sonko commencé douter ne moom ak sama patron y a aji ah! wax na lu rëy de nee na ñoom pasti ñoom mant ñoom chocolat ñoom jinjeer sonk yooyu rek la bëggoon yéeme na de nu mu demee noonu doy na waar nu mu demee noonu ah ñu continuer lu aji ba léegi lu mu wax balaa ñu egg la seize. dañuy bëgg a tëddee ci jacuzzi yéegal si table te def ay yëfu ñàkk fayda deux fois boo ko tëddee est-ce di nga mën a tëdd ak keneen ah moo tax tout le temps ngi ci lii moo tax kii du maa ngi taalee léegi du gis nga premier jour ba ma njëkkee sama téléphone laa daw tapé Ousmane Sonko tout de suite di xool discours yi mu doon def sama rongoñ ji tuur di xool yi mu doon def di wax li mu doon wax ci nit ñi yëpp may naan mais kii atta kii avant ku ko bëggoon laa dama doon wax ne kii moo mën a yor réew mi mi man àttan na maa sax dugg ak palais ci souterrain di ma tëddee tout le temps non wax na man je suis prête à tuer juste pour mu mu wa xool heureusement wax na ko si si si lii bi si si déclaration bi mu doon def. barki alxuraanu karim kii bu kii bu doonee président moom la xam bu ma mënta leen namaru ko ci dugal ma ci sous-sol palais bi du ma man xam naa ne amul fi réew ku la wax ba taxaw wax la fi nga dëkk. wala la sa tur ne la Rakham xam nga tu sais que tu t'appelles pas Aïcha nii nii Mima mu nekk way wax ma sama tur léegi ku ma wax loolu parce que le gars dafa jël temps di ma wër te man dama ne eh. soit si Kia soit si Fina soit si Kia Fina ñoom kenn si ñoom moo ko ne parce que nag ba mu ba mu nañu waxante dëgg ba ma fekkee kër Kia may ngi xeesoon leetu samay mees soo sama lu gàtt mu ne xale bii mu waaju xale bi ki kii yaa ne ko te loo si xamul xale bi xamul dara dof la et nga xam ne sama mbokk moom dugg ci massage bi mais ba ma ci dugal dañ ma nax man dañ ma toujours nax ba ma yegsi fii mais kenn dootuma nax. Eh, li ma waar de yéeme na de ah Mor sa ah Jeneba Jeneba ko hol gudditoo damal ko hol yon mo uddita ɗon ha ah. mi parani aɗa uddita a tampina kam la mi joni mi para aɗa heewi affaire an ah, ah sama gaay yemene doyna waar ah ñu xool rek ba su procès ba ah ñu ubbi suñu ay gët seetaan rek la def de ñun ak VIP ku ma fa dëgg ne ma massa de moom VIP ey bi combat nar na neex bi combat bii combat nar na neex de subhanallah eh! eh bi combat ay wax ne dama yaru ñu déglu Adji Sarr waxtu na ay wax ne dama yaru sama yaru ñëpp a ko xam xanaa say partisan ñoo ko xam te say partisan buñ la buñ la respecté woon yow duñ ma traité de caga kon day wane ne yow caga yi ngay fréquenté Ousmane Sonko deux ans ngi nii may toog di xaar ñaari atumaam yàlla di xaar benn bés boo xamante ne xaw ma woon sax ndax dina ñëw ndax yéen ni ngeen nekkee woon si dëkk bi chaque jour nga def point de presse sama diggante ak yow chaque jour nga def point de presse taxal ay gor deux ans ñaari atumaam yàlla ma toog ci kaso di la xaar eh? ñaari atumaam yàlla la yoo xamante ne yaa ngi wër di tuumaal ay góor Modou Fall dama bëgg nga xam ne góor yooyu noonu ngay tuumaal yow yaa leen xam man xaw leen man yow laa xam ndax yaa doon ñëw si Une Beauté Ousmane Sonko dama bëggoon te Ousmane sax yow Ousmane Sonko danga ma bett démb yàkkamti woon nga pare ba dem ñi bi defaat sa mën comme ni nga koy defee point de presse te ba nga jàkkaarloo ak man yaa ngi doon mel ne xaru yan juste bi moo la doon wax waxal ci kaw ba nga li nga tontu sa xaw ma ko li nga wax foofu ba léegi xaw ma ko ndax ndànk nga doon man ndax man démb maa ngi dégg ngay wax ci sa laaj ne tontu nga question ni nga ko li nga ko waroon tontu mais Ousmane loolu amul tontoo benn question te dem dama participer ci confrontation entre maître El Hadji Diouf ak Ousmane sonk la moo tax bëggoo tontu bëggoo wax ci man li ngay def nii da ngay na sa bopp rek mais yàgg yàgg nañ daje wiiri wiiri bi yàgg yàgg nañ daje. procureur tontu procureur wax na ak yoo te nga ne doo ko tontu juge bi wax na la nga wax juge bi sax man mii dégguma ko. te ma yaa ngi doon mel ne xaru yar jaar Diary kam wax na ak yow tontu woo ko maître El Hadji wax naa ak yow tontu woo ko léegi nga lan nga bëggoon lan kon lan nga doon ñëwee ofe fait lan nga doon ñëwee lañ moo la indi pour qu'on def confrontation ak maître El Hadji mënoon nga def point de presse comme ni nga koy defee rek ne maître El Hadji laay wuy ji man au moins man dinaa toog kër ga Ousmane Sonko sama diggante ak samay mbokk xajoo ci sama diggante ak sama papa xajoo ci sama yaay gaañ na demee sama papa mot na instant bi taxaw na taxaw yëpp Ousmane Sonko booy wut baay bu irresponsable mooy yow booy wut jëkkër ju irresponsable mooy yow man samay mbokk mënoo leen xaaj te samay mbokk mu mënoo maa jaxase ak ñoom sama papa booy wut papa bu responsable moom ngay booy wut pa baay bu bëgg njabootam moom la sama yaay gaañu na de mais juwee ma ko benn yoon ndax moom sama baay nag wowaguñ ko ndax dafa yàqataan doomu jàmbur sama baay nag taalagu fi réew ndax dafa toog def lu ko neex ba pare di naan ñëw leen ñëw leen yéen ma dañ ma xaw ma la sama baay aussi bàyyilu njabootam ay xaajo guddi jóg di fekkee ay njabootu jàmbur di leen yàqataan sama baay saa gu benn kilifa diina sama baay dafa gu benn affaire boo xamante dañ ko xeefe te yàqataana gu fi benn xale bu ndaw Ousmane Sonko nee naa la sama papa moo la gën te sa njaboot say histoire dinañ ko jàng say set setaat dinañ ko jàng ndax dinañ ma dinañ xam ne sa seen seen baay wala seen maam moo doon yàqataan xale bu ndaw ba mu mu profité si loolu taal di taal réew mi kuy ku irresponsable bu yegsee si yow mun a taxaw yow irresponsable bi ngay wax ci samay famille ci yow la njëkkee ak say famille je tenais nag pour wax ñi ñi j'appelle à un procès public te maa ngi koy ñaan koo xam ne mën nga koo doxee waxee ko procès public laa soxla fa man nekkoon tey laa fa gën a taxaw ah. la taxoon ma porté la plainte tey laa si gën a taxaw pour mën ak yow nañ jàkk ndax xam naa ne yàgg-yàgg dinañ tase ma maak yow nekkatul kuy toog wax wala kiy toog bañoo parce que damay bañ ku ma saag eh. tey laa gën a toog pour ñu dem procès tey laa ko gën a bëgg pour ñu dem procès ma ak yow yàlla ñu yàlla dafa jàmm maa ngi yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo fi nga xam ne fa la Adjira bi Sarr daanale foofu rek la ñuy ñëwee si Ousmane Sonko Adjira bi Sarr nee na yàqamtiwul lu dul procès moom ak Ousmane Sonko. classement sans suite mu yem ko bu nee nañu dem procès ñu dem procès. waaw pare nga bi. waaw léegi. Adji Sarr juge bi jël responsabilité am Sonko xaaral. Sénégalais yëpp dégg ngeen Adji Sarr moo doon wax léegi. nee na yàqamtiwul lu dul procès ñun ñëwit si Ousmane Sonko ñu xool moom est-ce que yàqamti na procès wala yàqamtiwul procès ñu déglu. juge bi jël responsabilité am. oh. woo ma déglu ma. bu nee classement sans suite mu yem foofu. bu nee nañu dem procès ñu dem procès. pare nga pour procès. soo procès soo paree soo parewul di nga dem procès. Mhm. kon. juge bi jël responsabilité am. woo ma déglu ma bu nee classement sans suite mu yem foofu bu nee nañu dem procès ñu dem procès. pare nga pour procès. soo procès soo paree soo parewul di nga dem procès. kon juge bi jël responsabilité am woo ma déglu ma bu nee classement sans suite mu yem foofu bu ne nañu dem procès ñu dem procès. pare yaakaar naa ni lii nit waru si xuloo lii nit waru si xeex lii nit waru si mën a weranti aji saar boo ko laajee loo gën a bëgg tey mu ne la dem procès dem procès mooy tribunal ñoom ñeme nañ ko de sonko ñu ne ko mu ne juge bi laa bëgg mu wooma bu dee non lieu dafa am mu yem fa bu dee amut mu dem procès ñu ne ko est-ce que procès pare nga mu ne procès nga pare ñàkk pare dangay dem leer kon ban nit la ñu war a mën a manipuler mu génn ne day taal pëna wala day génn day xeex pour ne procès du am ku ko def loo ci góobe da nga koy gar parce que dëkk de droit la nekk encore une fois fixé nañu datu procès Ousmane Sonko Adji Sarr le 16 xanaa nag Ousmane Sonko du demander renvoi je pense pas Ousmane Sonko mii doon taxaw ne yor na lépp ci ay loxoom ah bu laaj renvoi di am peut-être Adji Sarr nañu déglu laaj na renvoi mais bu mu doon Ousmane Sonko nag te it Ousmane Sonko am na lu ma waxoon bu la benn politicien jaral ngay xeex wala di xuloo ñu daal di déglu. politiciens yi par exemple violence politique bi am suñ ma interpellé je dis j'ai rien à dire aux crise sociétale. parce que. ku ñàkk ful la ci sa bopp surtout am ndaw nga xam ne société bi soxla na la mais pas ci xeex fulla soxna la pour la construction de la nation mm-hmm. say waajur soxla nañ la jur nañ la yar la toppatoo la ba nga toll ni nga toll ñu yaakaar nga war lañ mën a dimbali yow amoo benn fulla sa bopp lu dul benn politicien boo xam ne ci jamono ji mu lay yónni pour nga xeexal ko moom doomam ma nga Canada wala États-Unis tëdd nga dem di rey sa bopp ci loolu ñooñu lañu war a waxal tey man awma je n'ai rien à dire aux politiciens politiciens yi sikk nañu ba noppi munoo dara si ñoom mais jeunes yi lañuy topp au noonu ko quoi pour pourquoi di génne ay jaasi di tëb di dal ci loo xam ne politique du loolu politique débat d'idée la ku nekk na ñëw ak programme am ku nekk na ñëw ne askan wi lii mooy sama mbëbët ci askan wi ku nekk toog déglu parce que yàlla may na ñëpp xel mhm. seet li la gënal bësu vote nga dem vote dem ñibbi. loolu lan la ci ay xeex ak kii li may wax nag. leer na Sonko nee na bu ne bu la benn politicien jaral xeex. boo amee sa doole demal nga xeex pour noo amee dépense mën a taxaw sa njaboot. donc de cela je vous dis ñu fanaan ak jàmm bu ngeen gisaatee nag ma ñëwaat ci combat bi di waxaat mbiru Adji Sarr ak Ousmane Sonko wax naa ko ba may ubbi live bi. Adji Sarr moo yëkkati téléphone am démb woo ma ne ma mu ngi may jéggalu que je suis son grand frère li jotoon am la passé bu sañoon ñu ànd nekkaat benn bokkaat nday bokkaat baay parce que moom daf ma considéré comme magam la ma ne ko ah nit ki de boo baaloo rek ñu baal la baal naa la ak sama petite sœur nga nañ nekk si jàmm même vidéo bi ngeen gis ma publier ko sax muy woy titi bi moom moo ma ko yónnee WhatsApp sànq it wax dëgg fa yàlla balaa may dugg live waxtaan nañu ba tey si ngoon mu ngi may bind WhatsApp ñu ngi waxtaan ñu melaat comme lu ñu meloon ñu fàtte la passé parce que jamono jooju it lu yëkkatoon sama xol ba ma génnoon def yenn réaction yi ñëpp xamoon nañ ko nekkoon ci kaso génn amee dëj loolu dafa neexul si xol moment yooyu sama xol yéeg na sama xol tàng na te nit kese laa nag wax dëgg fa yàlla Kira Ba maa ngi lay nuyu donc yéen ñii si xëy na meroon munu leen woon mer ba gën ma mer parce que combat bi lu luñ si def bëri na lool muy waa Kodas muy gars yi si réseau yëpp di jàppale aji Sarr danoo sacrifier seen vie ba ci man mii dama toog si réseau sociaux yi depuis Paris gis ngeen live bi si ginnaaw ma jël sama temps di ko concentré wu di tabax di tabax di tabax di ne justice pour Adji Sarr justice pour aji Sarr lépp lu ñu xam pour di défendre aji Sarr ñu toog di si rey suñu bopp jamono jooju xëy na am na. ñoo xam ne ñu ngi si groupe WhatsApp yi ñu ngi def dëgg la am na ñuy partager ñu ngi def dëgg la mais responsabilité bi yëpp ñun la woon parce que ñun nëbbatuuñu dañoo exposer suñu bopp exposer suñu famille xam ngeen luñ leen waxul dañoo exposer suñu bopp ba tax na tey waa kër Ousmane sonk waa kër Yolom Gaño bu ñu amee haine envers moi c'est parce que maa ngi défendre Adji Sarr donc nag tolof tolof dugguma expliqué woon naa leen fi jotoon am jarul sax ñu si ñëwaat. ma gis sama bopp ma mer parce que nit kese laa nit ku dul mer doo nit doomu aadama boo gis day mer bon yàlla dogal na ni xëy na ba ma mere toog naa sama ruq jéemoon na mu woo jëlu ma teg naa sama bopp ne pare naa si lii ay nit yu bëri wax dëgg fa yàlla woo nañ ma côté bu ne Amérique ak France ak Sénégal ak Kali continental jàppale Adji Sarr ba ay kilifa ñu bëri sama xol neexul woon man it mënu ma ko woon parce que tamit li may jàppale Adji Sarr amul mbindeef buy taxaw ne mës na jël cent franc jox ma ko pour li may jàppale aji Sarr amut dama koy jàppale rek te yàlla tax diggante bu nekk séeréer ma nekk mbokkam xaalpulaar di ko taxaw ainsi de suite ainsi de suite donc man ma ñëw di jàppale aji saar Sarr ñëw ma si ñaari salaamaaleykum ñu ma si dërëm mosuma si gis 17 mosuma si gis vax maa ngi ñëw taal sama connexion jàppale ko maa doon ëlbatiku sax di jël sama doole as tuut di ñëw di ko jàppale tey ba ñu waxee démb it loolu yëpp comprendre na xam na ni mosuma ko bañ mosuñu nekk ay ennemis sama raq la woon xëy na si diggante bi am na ki mu nekkaloon kooku jaxase woon noonu man it ma mer boole leen ñoom ñëpp si mbuus daa di yaa ma gën a xam mais alhamdulilahi rabbil alamin kii doon tax sax ma joteeg moom kooku gis ngeen ba mu nekk toog moom ba léegi yi mu ngi nekk nit mu ngi macha allah mu ngi tarkalla amatul euh, bopp yu métti. amatul ku koy teg pression parce que aji jigéen la xàppi la xam jàmm la xam salaam la xam ne nekk ak nit mu lay teg coono di la yuuxu di la gëtam say mboq bu ñu bëggee ñëw sa kër ga mu bañ say dëkkandoo bu ñu fa bëggee kii yuuwaleen wada di wada daa ba aji tàggoo kooku ba léegi jàmm la aji am te yàlla na continuer di am jàmm jooju ñun ñu génnoon di ko live ak bañ ko live ak sunu xel ak sunu xalaat yépp moom lañ doon soutenir mais comme di génnoon nag si réseaux sociaux yi di wax si Adji Sarr ah fii ak lu mu deful démb def ko woon moom du ñu ñëw ñëw nag wax dëgg fa yàlla dinaan dañ koy défendre comme yàlla ëlbati nga dana xelam toog na toog moom en personne parce que j'avais plus son numéro si diggante bi sax xëy na changé na numéro moom moo yëkkati comme amoon na sama numéro daa di may woo wax dëgg fa yàlla premier appel bi sax c'était en absence mu rappelé waat ma ñu déggante te ba ma wooye lan la ma wax mag ji namm naa la dama kali seet mosuma la wax kali mag ji rek mag ji tam la jàpp comme sama mag man it ma nangul ko mu nekk sama raq ñu yàgg échanger lu bëri wax dëgg fa yàlla meroon na tax li ma fi waxoon yépp daal di wax mais waa Pastef fi kontaan partager vidéo yi Kaliphone nee na vidéo amul Kaliphone bu waxee vidéo amut aji nee na vidéo am na lu si kanam raw li gët te Kaliphone musut wax xëy na viol amul mais dafa ne woon vidéo amut vidéo amut nag signifie pas tëdde amut signifie pas saay-saay amut dem leen ci vidéo yépp ngeen wër ci YouTube bi samay wax démb dama ne woon vidéo amul mais ma ne tëdde amul musuma ne yàq amul musuma ne euh, siif amul encore samay kàddu day leer gars yi boobu béggoon nañu nii nii moom xam naa dinañu mer comme d'habitude mais man ku mer sa problème la ku béeg yàlla na nga continuer bi sant naa leen gërëm naa leen yéen ñi si doon dox tànku jàmm boobu ba léegi di woo aji xëy na di ma woo di bëgg ñu nekkaat si jàmm xam ne combat bi suñu kombaa la lépp pour mën a xeex yolom gaño ba sagoom du mën a àgg ndax kii ab poson la ci réew musiba la ci réew yàqkatu réew la ñun lépp lu ñu mënti def di ko wax dinañ def le tout comme say ñu ay junni nit bëggoon nañ ko di def mais xëy na yàlla mootalewul ñuy mën a toog ci réseaux sociaux yi ba guddi ay nit di leen bàyyi xel santaat leen gërëm leen yàlla yàlla sàmm ñëpp yàlla yàlla jox ñëpp jàmm yàlla yàlla jox ñëpp salaam maa ngi jégalu ah Modou Fall pour magasin bi publicité yi guddi na il est zéro heure xaw naa sonn tuuti aussi live bi sax c'était même pas prévu parce que ne woon naa leen dans deux semaines laay live parce que dafa am si ma nekk jox leen dig daje rek incha allah beneen live bu neexee sunu borom di ñaan yàlla suñu borom yàlla na yàlla may ajira bi saar ndam bu set huit ndam bu set du guy ci kaw usman Sonko yolom gaño bu ko defee sénégalais yi dinañ comprendre ñoom Kaliphone lan moo taxoon ñu doon génn di dal si kaw Ousmane Sonko di nit ku baax tey du nit ku baax suba du nit ku ñu war tamit jox réew mi kilifa diine yi bañ nañu kilifa aada yi bañ nañu jàngo bi bañ nañu Ousmane Sonko daal na toog këram nekk si jàmmam sénégalais yi continuer di liggéey pour un Sénégal meilleur wóolu nanu sunu président Macky Sall incha allah rabbi hi 2024 ñu joxaat ko réew mi mu continuer di jiitewaat réew mi sénégalais nekk si jàmm sénégalais nekk si ja euh, salaam asalaamaaleykum wa jox leen dig daje incha allah beneen live fii lay doon si seen chaîne wala page Facebook Kali TV jàmm si yéen ba fan yi incha allah rabbi